kon nag ku bëgg jariñu ci nitu yàlla yeeg njabootu yàlla ngay xam kenn ku ci nekk la lay jariñ ci moom nga àndeek moom loola parce que ànd yi juróom juróom benn la as soxbatu ma allah ak as soxbatu ma al ambiya ak الصحبة مع أولياء الله الصحبة مع الأهل الصحبة مع الأصدقاء الصحبة مع الجهال dem nga bëgg ànd ak yàlla wala nga bëgg ànd ak yonent ba nga bëgg ànd ak nitu yàlla waliyu baa nga bëgg a ànd ak sa ñoñu bopp baa nga bëgg a ànd ak ay xarit baa nga ànd ak ñu réer juróom benn yéen bi ne bu ca nekk nag am na jikko bu koy defar ñu ni yàlla nag ku bëgg a ànd ak moom seen ànd lu koy defar ñu ni ñaar dong mayal yàlla teggin amal kersa ci moom yàlla ku ko mayul teggin amoo kersa ci moom seen ànd du dem may yàlla teggin nag mu ngi ci foo ne yiw waaw yiw rek bañ a yiwadi kooku mooy may yàlla teggin moo xam yow dong nga nekk nag moo xam yàgg nit ñee nekk may yàlla kersa nag mu ngi ci mën a def lu la neex waaye nga xam ni sa digganteeg yàlla ëpp na nga def lu la neex nga may ko kersa ñaar yooyu rek la ñu ni ku bëgg ànd ak yàlla nag boo mënul ñaar yooyu seen ànd du dem ñu ni yonent nag ku bëgg ànd ak moom nooy dem ñu ni ndigalam bu ko fa ba nitu yonent bu ko fa ba bul seeti ndigal bët lu tax mu jox la ko ñu ni bu ñaareel ba ñu ni mooy fexeel ba jikko bu mu def ci boppam fexeel ba wut jikko ba nga def ko ci sa bopp moo tax walakum fi rasulillahi uswatun xasana fexeel ba roy yonent bi ci jikko nag waxuñu nga roy ko ci mbubb waaw royal jikkoom nu mu yiwe nga yiwe ni nu mu baaxe nga baaxe ni nu mu selle nga selle ni boobu baax na ay roy ko ci mbubb nag amul solo boo ko royee ba noppi nag ndigal loo jógee jële ci moom bul seet nan laak nu mu defal rek waaw ni bu dee nitu yàlla nag waliyu ñu ni ñaar rek a koy defal mooy may ko orma te loo dégg ni ci moom la jëm boo ca mënee sonn ko ñëpp nga sonn ca ndax looloo lay jariñ ci moom ñu ni bu dee yàgg sa ñooñu bopp nga nekkal lu lay defar ci ñoom ñu ni nga fexe ba rafetal sa jikko ndax sa ànd ak ñoom doxal fexe ba kenn ku nekk it la war a dox sa digganteeg moom nga doxale ko ku bëgg a ak say nit say façon ngay ñoom sa jikko ba leen xatal kenn ku la dox sa nga jox ko ko ba mu jeex ñu ni ku ànd ak xarit nag boo bëggee seenu ànd rafet noo koy defe mu ni fexeel ba bu ñu la jëppi te bu leen jëppi waaw mu ne nag loolu ku ko bëgg nag ngor ngay àndeek ñoom ku àndeek sa xarit ngor nag du ngeen jëppante waaye ku ko àndeek ñoom bëgg-bëgg nag bis boo amatul bëgg-bëgg ba nag mën ngaa wor te ku wor nag yàq sa ànd ak sa xarit ñu ni ko ànd ak ay dofi kese nag ñu ni dofi kese nag ñaar rek di leen moytu bu baax waaw te di leen jéem a comprendre waaye leneen loo def lu dul loolu ñu xëy la sacrifier waaw del moytu bu baax waaw de leen moytu bu baax nag waaw te jéem a déggoog moom parce que boo leen mënul a changer leneen loo indi bis bu ñu la sacrifier rek ci yow waaw mu ni waaye nag nitu yàlla ci jamono ñi muy gën di gaaw a réer mooy boroom xam-xam ndax dañuy bëgg tënk nitu yàlla bi ca la ñu jàng te nitu yàlla xam-xam tënkatu ko sharia tënkatu ku yebu xam loolu léegi nit yàlla ko mu yegg ba nekk la mu doon xam-xamu téere yi tënkatu sariya it jaar na ca la mu ca war a jaar ba yàlla def ko nitu yàlla moo lay xamal ne sariya dootu ko tënk mu nga ca xaqiq moo tax nag Cheikh El Hadj Omar nee na képp ku nekk borom xam-xam ci jamono nee na bu la sa jàng jay mukk ba nga ruufunteeg borom yàlla parce que bis boo ko rek di nga gaañu waaye jamono bi bari na ci surtout sama morom yi jógee ci pays arab yu kenn xamul dem arab yi nax leen rek ñu jàng indi ay diplôme boo waxee ñu naan sëriñ amul tariqa amul nangam nangam te xamuñu ni arab ya leen ko jàngal ba léegi seeni pro seeni problème résoudre gul gis nga loolu mooy fulla nit ki bu lay wax da ngay seet ndax li mu lay jàngal ni la moo nekk ndax moom affaire am defaru na ci wala déet mais arab yaa ngi nii di sow boobu ba tey naan l'islam lañu gën moom la ñu yaakaar te problème mu Moyen-Orient yaa ngi nii sans solution la guerre du golfe mu ngi nii entre Irak ak Iran ba léegi amul résultat Moyen-Orient yaa ngi nii sans solution la guerre du mu ngi nii entre Irak ak Iran ba léegi amul résultat la guerre du Liban te ñoom ñu ni fa la yonent bi wàcc ñoom moom l'islam lu tax mënuñoo am solution kon nag yow mi nekk ci sa réew yu ñuul yii te sa xel di dal boo ko wutee xam-xam ñu def la naan la weddil loola bis boo ko weddee mel ni ñoom bis boo ko ni ñoom puisque dafa am jëmm am gis nga jëmmi l'islam moo nekk ca arab ya moo tax bu ñu kàbbaree nga tiit bu ñu baa nga tiit bu ñu nee labbayka allahumma labbayka nga tiit boo demee Màkka dafa ni yonente baa ngi dund fekk ne jëmmu lislaam la ñuy exploité mais ruuxu lislaam mu ngi ci mag ñi fii ñu tëdd ak moom fala ordre ya moo tax ngay gis ku jóge fii ci sunu sunu dëkk yi dem te arab ya ya gëm loolu du ñu ko gëme waaw ah. moom la arab yi di laaj benn jour Serigne Cheikh dafa ñëw Arabie Saoudite dal ci benn hôtel ñu seen subaak ngoon Mohammed Sururu Sabbaan moo nekkoon ancien secrétaire général de la Ligue mondiale musulmane rabitatul alam al islami moo nekkoon secrétaire bi mais ñu gis suba gu nekk moo daw day daw buy doxi service su Serigne day daw waaw subaak ngun mu ngay kërëb kërëb waaw moom sururu saban faatu na léegi ali xarakan moo ko remplacé di daw ñu naan waaw sururu saban ak ni mu dayee garaata yor ligue mondial musulman kan lay dawal nii mu ne xam naa ki may dawal bi ah, xam naa li may daw lan la